C'est une grande fierté d'être le parrain de ce bel événement et de prendre la parole au nom de tous les parrains qui ont été honorés pour cette belle organisation. Aujourd'hui, cité l'amour de l'élevage, je voudrais nommer un ami qui m'a beaucoup inspiré à avoir cette affection de la race Ladoum, je vous nomme mon frère Sidi Ndaw. Un homme pétri de qualité, un homme à qui le Sénégal peut compter de son engagement, mais également de tout l'amour qu'il porte pour ce pays. Je l'ai entendu tout à on le nomme l'homme social. Mais aujourd'hui, si Ablaye est devenu l'homme social, c'est parce que derrière lui, il y a Sidnao qui le soutient à moment dans les actions sociales qu'il est en train de mener à Thiès. Merci également à notre frère Damien Diop, qui est un grand frère et qui nous soutient dans toutes les actions que nous sommes en train d'entreprendre. Monsieur le maire, vous avez été interpellé et connaissant votre amour pour Thiès, votre générosité, je pense que l'appel n'a pas été entré dans le l'oreille du sourd. On comprend tout l'engagement que vous avez pour cette belle ville de Thiès. C'est l'occasion pour moi de vous féliciter de toutes les actions que vous êtes en train d'entreprendre pour euh, place que nous, que nous tous Thiessois partageons. Aujourd'hui, c'est de voir que la promenade des Thiessois a retrouvé son lustre d'antan. Merci encore, monsieur le maire, et je vous à accompagner encore les élèves de Thiès, leur permettant d'occuper la place gratuitement et nous serons entièrement à votre côté. wax ni rek euh, ñu ngi encouragé euh, le regroupement des éleveurs de Thiès ndax ku xam élevage xam ni son excellence le président de la république loolu sax xam naa duma ci sori secrétaire général li dina ci ñëw ak le ministre am na jéego yu bëri yoo xamante ni def na ko pour le développement de notre secteur de l'élevage ici au Sénégal mm-hmm. te loolu bu amee yenn catégorie da nga gis am rôle bu am solo bi ñu ciy joué di leen inviter vraiment à participer à cet effort de solidarité surtout l'autosuffisance d'approvisionnement en mouton de Tabaski parce que ñu ngi wax élevage des fois xar yi may gis du nekk à la portée du citoyen lambda donc war ngeen def effort yoo xamante ni créer yeneen relation yoo xamante ni citoyen yi gën a euh, nekk au bas niveau war na ko mën am su boobaa du ñu xalaate di di jéggaani di dem wuti ay xaru tabaski bi indi fii Sénégal donc je pense que ni seen rôle mooy renforcer le cheptel renforcer euh, la production euh, de la race fii Sénégal Euh, jéego yu muy def ngir ubbi frontières yi ngir xar yi mën a ñëw et je que ni seen association yi seen regroupement yi war nañu réfléchir sur loolu ànd ak seen le ministère de l'élevage pour que ñu mën a renforcer suñu production euh, de moutons ici au Sénégal et je pense que nii c'est l'occasion pour moi ma féliciter leen encore remercier leen parce que tey organisation bi ngeen yor Euh, c'est une organisation pourvoyeuse d'emploi parce que ku ci nekk euh, yor nga entreprise boo xamante ni au moins jël nga say emploi donc tey bu ñëpp defoon je pense que ni le problème de l'emploi au Sénégal dina mën a wàññeeku ndax vous êtes des entrepreneurs yéen a ngi liggéey ci élevage mais élevage yëpp xam nañ secteur primaire la bokk secteur boo xamante ni mooy bokk mooy tax dëkk mën a am économie bu bu forte mais également mën a développer donc pour ma terminer te ma remercier le représentant de élément Sandeur vraiment si qualité approvisionnement bi nga xamante ne mu ngi koy jox ba ñuy mën a am une bonne production en tout cas merci encore à tous euh, les organisateurs mais également à tous les membres de Réi Sénégal sans oublier Euh, un des grands frères sama mag sama xarit Oudé Diagne bu ma ñëwee fii foog mu nuyu ko ndax xam naa taxawaay li nga xamante ni am na ko ci élevage donc aujourd'hui mën nañ ni Thiès est devenue la capitale de la race Ladoum Thiès est devenue la capitale de l'élevage ndax euh, organisation bi on peut organisation internationale parce que c'est pas la première fois ñu dem ay fois mais li ñu gis fii tey wane na ni des jeunes des hommes et des femmes très engagés ñoo nekk ci secteur bi pour mën ko développer mais aussi je ne saurais terminer sans pour autant une pensée pieuse au directeur de l'urbanisme Omar Sow qui était un ami qui était un frère yàlla na ko yàlla xare àjjana ak ñëpp ñoo xamante ni nekkoon nañu ci secteur bi yàlla jëlee fii di ñaan yàlla nag Sénégal yàlla def fi jàmm parce que lii bu jàmm amul woon tey du ñu mën a fii di organiser lu mel nii donc nañu gën a rappeler nos valeurs cardinales yi nga xamante ni moom la ñu am mooy jàmm wax lu baax def lu baax booloo nekk benn ngir un Sénégal de paix Sénégal de stabilité mais un Sénégal qui se développe maa ngi sant ñëpp gërëm ñëpp jërëjëf. merci beaucoup moom la ñuy suñu réew. ko doxalee suñu collectivité yi dafay laaj jamono bu ne leeral ndax leeral mën na tax euh, bañ a réeroo bañ a am mën na tax aussi nit ñi bañ a ñibbi ci dara loo xamante ni leerul ca mode de gouvernance ñuy def lépp dafa war a leer li tax lépp war a leer mooy soo jiitee collectivité bu mu mënti doon da nga war a moytu le maire muy le con président du conseil départemental warul def benn mbir ci loo xamante ni ci coobareem wala bakkanam rek loo xamante ni déedéet mais lépp du fa war a sur la base de texte sur la base d'une orientation bu leer a leer fois c'est une libération moo ko structuré su ngeen xoolee promenade des Thiessois dafay am foire place Mamadou Dia na am foire agora bi aussi espace ñetti espace boobu pour wane nii on avec vous ay doomu Thiès ñooy organisé pour la première fois pour la première fois ñu jëlandoo trois places cumulé ko jox leen ko pour que ngeen nekk à pour que ngeen mën a def seen foire ca benn foire boo ci jël wala benn place boo ci jël dafa am ay prix yoo xamante ni ñoo ko fixé li tax may leeral ci foire yëpp du pour yéen mais pour ñëpp la parce que mbooloo dajale fi dañuy ñibbi ca yeneen activité dina am su ngeen xoolee place promenade bi dafa stratégique tous les Thiessois fi la ñuy converger di fi ñëw ñu mën a dem restaurant ak ñu mënul dem restaurant mu war a nekk des espaces ouverts démocratisés bien aménagés ba ko amul xaalis sax war nga mën a dem promenade ba nga féex selfie nga ñibbi war mais su foire amee place bi dañ koy tëj les Thiessois duñ ci am accès l'organisation d'une foire c'est trois jours au moins avant l'événement bu événement bi jeexee trois jours au minimum ça prend quinze la ñuy wax mais vingt jours mais vingt jours boo xamante ni da ngay fermer la place toute la place je pense que en tant que maire war ngeen mën a comprendre yenn préoccupation yi nga xamante ne am nañ maintenant là où je vous rejoins je pense que prochainement lu ñu mën a oyofal te oyofal nañ loo xamante ni benn place promenade bi rek lañ koy joxe wala ñu koy joxe Papi place Mamadou Dia wala Agora ñu boole toutes les trois places je pense que la mairie est bien à vos côtés je pense bien maintenant le minimum yi ñuy laaj mënta parce que les mairies n'ont pas de li ñu fiy investir ce n'est pas l'État du Sénégal je pèse bien mes mots y'a que directeur Abdoulaye Dièye moo jël bi ñuy def suñuy journée culturelle de la ville mu jël 2 millions def ko ci mais lu dul loolu keneen dugalu ci alalam du état du Sénégal du kenn c'est la mairie ak li ñuy dajale ci pré moyen pour réhabiliter Thiès pour réhabiliter la promenade ça je devais faire ces précisions pour que ku ne mën ko ñibbi pour que ça soit très clair merci di nuyu sama rakk sama xarit monsieur le maire Babacar Diop di ko félicité ci taxawaayam ak liggéey bi nga xam ne ni mu changé xar kanamu place de France sunu fierté di nuyu sama rakk sama xarit président le directeur général pardon de l'AIBD monsieur Ablaye Dièye ñépp xam ko ci taxawaayam ci socialam ak ni mu jege askan di nuyu le secrétaire général du ministère de l'élevage nga xamante ne moo fi nekkal monsieur le ministre monsieur le premier ministre ministre de l'élevage monsieur Amadou Ba monsieur Ousmane Go Ousmane Mbaye ñu ngi lay nuyu di leen wax nekk nag doomu Cees la mbir mi nag daf cee war a gën a jàpp parce que doomu Cees la te su ma koy nuyu maa ngi nuyu ci ginnaawam la directeur de l' élevage monsieur Sow moom it nga xamante ne moom it doomu Cees la yéen ñëw ñëpp. xam nañ ne kon Thiès am na solo boo xamante ne ñu ngi koy taxaw ci élevage au niveau national di nuyu le président wala le monsieur Khadim Fall bu président rëy moo ko xaritam doomu ndeyam sama jarbaat sama rakk Papi Dieye su ma leen nuyoo maa ngi nuyu en même temps le président d'honneur docteur Diallo. Mm-hmm. ñett ñii dama leen di nuyu particulièrement ñoom ñaari xale yi la d'abord seen humilité seen pas-pas ak ni nga xamante ne noonu la ñuy taxawee c'est une fierté pour nous vous êtes une source d'inspiration pour les jeunes Thiessois ci beneen organisation di nga gis président bi fanaan man maay wax mais ñoom dañuy xëccoo cër ba yenn saa ci deful ndax sax cër ba toj loolu moom moom maa ngi ci félicité encore Khadim Kane élevage pour vous dire que élevage esprit bi mu fay yee ci nit ki mooy solidarité ak générosité l'éleveur est généreux tey su ma ko waxee rek ñambaas naa ci sama xarit mi nga xamante ne mooy Sidi Ndaw Sidi daf ma gis am ci man cofeel ma am ci moom cofeel mu may ma xar moo xamante ne macha allah xar mu rafet la ah, mu ngi fii mi ngi soo demee tey ma nga fee toog muy xar mu rafet a rafet moo xamante ne doomu doomu xaram bu mag bi nu mu dëddi déedéet karama ko kooku du como ku la ko may rek may na la lu rëy te loolu générosité la élevage loolu moom mooy importance am dafay créer des liens yoo xam ne day weesu sax élevage bi def parce que di ngeen dem ba tuddante ci ay doom lu am solo la def na fa fukki at année bu njëkk bi bañ koy door boobu docteur jàll moo ko yor sama jabar moo doon marraine tey ma année man maay parrain bi kon xam ngeen ne mbir mi am na lu ci def NMA Sanders ba muy ñëw première année bi man mii maa ko indi bés boobu Ahmed Amar laa indi mu ñëw toog fekke ko moom mu nekk loo xamante ne lu am solo la boobu ba léegi su ma ñëwaatee fekkaat leen fi ñu jox leen parrain man kon ma xam ne kon alhamdulilahi rabil alamin loolu ñu simboo nag Ahmed Amar Ahmed jóg na fi waaye ñii nga xam ne moom la fi bàyyi ñi ngi taxaw taxawaay bu rafet boobu maa ngi nuyu Anta di nuyu Xaadim yéen ñëpp soo leen demee ngeen ne jabel jé eh, décce macha allah seen taxawaay kontaan naa que soo leen fi taxawee man ngeen di taxawal ndax Ahmed Amar ñëpp xam nañ sama diggante ak moom di doore par jaale mbooleem ñi nga xamante ne dañu ñàkk seen bakkan ci fan yi weesu ci événement yi di tam ñaanal ñi nga xamante ne dañu am jéego yu mag yu ñu defoon ci élevage tey ñu jóge fi ma rafetlu nag fàttewoo leen leen wàccee leen ngeen kaamil tey jii ngeen bind leen teg leen fii loolu mooy wane ne élevage du fàtte démb. Mm-hmm. ñu ñu leen di ñaanal ñoom ñëpp yal leen yàlla xaare àjjana yi gën a kawe. ñuy doon tam am lenn loo xamante ne dañ ko doon bëgg a mooy ndawu Cees fan yi am na lu xew ñu bare defoon nañ ne élevage kii foire bi du am ndax ba ñu koy samp di ko sos yëf yi dëkk bi jaxasoo waaye Cees waay ci seen xarañte ci seen taxawaay ak bëgg seen dëkk benn weñ benn dam euh, xar damu fi kenn attaqué wu fi kenn macha allah dugg nañ ci bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin suba ñuy ñaan ñu génn ci alhamdulilahi rabil alamin loolu nag mënuñu ko woon def te duñu remercier Cees waay ci seen taxawaay te loolu nag lu am solo la parce que Cees xam nañ ni dëkk bi ñoo ko moom suñ ko yàqee keneen bi ñu ko defaral kon nañ ko gën a sàmm kon waa gën leen taxaw ci loolu di wax nag ci élevage yàlla def na man éleveur la ndax yor naa ñetti stand yi ma yor fee te xam naa ne après monsieur le maire il faudra nga foofu ah wan ma tax wan sa taxawaay ak Ablaye aussi moom tam éleveur la woon boo xam ne pap siidee ko ci dugaloon waaye temps yi dafa xaw a sooxe séedee dugalaat ko ci biir parce que Thiessois bu nul éleveur du yoon tout Thiessois est éleveur lu mu tuuti tuuti Thiessois bu ne éleveur kon nag loolu moo tax ma ne élevage bi waruñu yem ci foire yi kese monsieur le maire monsieur le gouverneur dañ leen war a interpeller dans de la dans le cadre de l'intercommunalité ñu jox espace yoo xam ne dañu fay war a bay fourrager parce que baykat éleveurs yi sonn nañu parce que ngooñ bi cher na te ay tey jii suuf si mi ngi fi naaj bi mi ngi fi xale yi ñu ngi fi nañu leen jox espace yi ñu bay fourage bi mu gën a yomb si ñun. loolu nag loo xamante ne monsieur le maire monsieur le gouverneur ñoom ñëpp ñu ngi leen koy gën a ñaan monsieur le secrétaire général loolu dama bëgg ñu gën cee jàpp parce que ñoo ni ñuy joxe espace pour semence. gerte gi di ko joxe espace ci anidaay bi war nañu jox ñun tam espace yoo xamante ne dinañ ci bay pour am fourager bi parce que fourager bi moo ñuy permettre ñu wàññi li nga xamante mooy coût bi ndaxte xar yi tax mu cher xar dafa cher prise en charge yu xar dafa métti. xeet bi xeetu xar yi ñu am nii mooy laadum dafa nekk xeetu xar boo xamante ne tey au niveau international dafa am réalité. dafa am aujourd'hui dañ ko dañ ko xam soo demee France nga dem Italie nga dem feneen fu ne dinañu wax ne que laadum bi xar boo xamante ne la spécial la parce que li mu am ci ay mensuration néew na am xar yi ko am dans le monde waaye loolu lépp nag su dooree dafa fekk am na ñoo xam ne ñoo nekkoon ci ginnaaw ay ñoo ci nekk tey moo tax tey abukat mi toog mënuñu tudd laadum te duñ ko wax ñu ngi koy encore encouragé di ko félicité bu continuer ci liggéeyam bi parce que générosité la amul noonu la ko amee générosité gis naa ñi nga xam ne jox na leen xar ba tey jii ñoom ñu nekk ay champion sama gétt am na ay xar yoo xamante ne ci këram la jógee kon loolu lépp looy day indi nit ñi seen biir ñuy doxalante ñuy defarante teraanga moo tax élevage am solo bu mag a mag a mag encore une fois merci pour tout le monde merci à l'organisation di leen wax ne que monsieur le maire li mu leen wax dafa nekk fii suñ ko bëggee soppi il faut que nit ñi def ci alal waaye tamit monsieur le maire tamit ni nga xamante ne loolu nga wax nekke noonu yooyu tamit war nga teg tamit te sa loxo ndax lii événement international la buy jaay Thiès te suñuy ñuy jaayee Thiès yow lañ ko jaayee teg ci def sa loxo di yow fii ci turu monsieur le premier ministre monsieur Amadou Ba ministre de l'élevage ko fii ci foire RAID mu nekk dixième édition ñu gis ni d'édition en édition aussi foire la boo xam ni euh, engouement bi mu am au niveau régional au niveau national comme à l'international engouement bu am solo la mu nekk loo xam ne ni aussi euh, dafay wane liggéey bi am solo bi nga xam ni acteurs yi évolué dans l'élevage de race ladoum ñu ngi koy liggéey bokk na ci liggéey boobu tey sélection bu am solo bu ñu def ci ladoum def croisement génétique yoo xam ne nii que mën naa ni pour euh, ñu dépassé ko dootul bëri loolu kon li am solo te éleveurs yëpp war ci liggéey mooy fexe ba nu ñu mën a yaatale suñu élevage laadum bi mën a yaatu ndax gis nañ ay éleveurs yi commencé ay dix vingt trente sujets mais ministère de yi ñu bëgg mooy ñu am ay centre d'engraissement yoo xam dañuy mettre en tout cas laadum au profit de l'élevage. Quand je dis au profit de l'élevage, c'est surtout l'élevage extensif. ñu jël nos races locales mun leen boole ak laadum gën a man a yaatal li ñuy liggéey loolu moo ñu mun permetre ñu mën a atteindre autosuffisance en mouton pour ñu mën a réussir pari boobu mënuñu ko def sans réussir le pari de l'alimentation animale monsieur le ministre wax na ko euh, suñu xar yi dañu continuer di dépendre de l'extérieur fourrage bi ñu am amul solo su ñu bëggee euh, am ay xar yoo xam dafay accessible faaw ñu liggéey si les cultures fourragères ci loolu aussi ministère de l'élevage am nañ ci ay programme di développer ay semences sélectionnées di pare pour accompagner organisation d'éleveurs yi nga xam ni bëgg nañ accompagner le ministère mais aussi accompagner seen bopp vers l'ensilage monsieur le ministre léegi bi ñuy visité maa ngi wan léegi monsieur le maire ensilage de maïs ñu ngi wane aussi culture luzerne su ñu bëggee élevage yaatu il faut que éleveurs yi ñu pousser leen vers la production de cultures fourragères et pour loolu aussi il faut que les collectivités territoriales euh, en tout cas ñu jàppale éleveurs yi jàppale ministère de ndax ministère bu ñu amee en tout cas des programmes pour am ay semence am ay programmes pour accompagner en tout cas la disponibilité de l'eau difficulté bi ñu am mooy en tout cas avoir accès au yi pour que nit ñi mën a bay ay cultures fourragères mu mën a développer élevage Sénégal en tout cas mbégte bu rëy la ministre de l' élevage am ci waa Thiès am ci waa ci organisation bi en tout di am yaakaar ni euh, tendance bi ñu jël mu nekk une tendance très dynamique et une tendance très positive monsieur le ministre suñ ci jàppee continuer ci liggéey fii ak deux ou trois ans dootuñu importer xaru tabaski déjà sur dix xaru tabaski yi ñu rey fii ci Sénégal huit yi fii lañ ko liggéey te ku gis mbedd yi li fi nekk lépp soo génnee Thiès pour le moment nii c'est les de l'élevage intensif ñoo ciy liggéey si biir kër yi. ñi ci ëpp aussi mooy waa Ahlou Ladoum kon liggéey bu am solo la boo xam ne nii que en tout cas ministère bi seen gannaaw di leen encourager aussi di leen accompagner pour que d'ici deux ou trois ans. kenn du doon jëlee di xar bitim réew mais suñu laadum dañ koy exporter en parlant d' exportation du mouton monsieur le ministre suñu laadum yi ñu ko bëgg bëri na ren bi ñu de l' élevage donte que ay projection lañ fa defoon mais euh, en tout cas dafa attire beaucoup d' intérêt mais pour ñu mën a exporter aussi suñu laadum war nañ liggéey ci catégorisation parce que suñu laadum kenn catégorisé en tout cas loolu defaguñu ko ce qui fait que ça c' est un défi à adresser mais un autre défi aussi c' est la santé animale parce que tant qu'on n'aura pas éradiqué la peste pour les petits ruminants on ne pourra pas exporter exporter laadum comme on le ci loolu maa ngi sant ñëpp di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah